a ngeen jëf wootey local yi bari na ci ay candidat yoo xam ne waxuma la waa koñ ba waaye li ñuy wax waa kër ga mooy seen problème waa kër Macky Sall yi di waa Benno Bokk Yaakaar jël lu bu rëy bi ñu daanu ci élection yi daanaka mooy mbambu ci mbooleem yéenekaay yi ñu xëyandool yëral xët mu njëkk yéenekaay bi nga xamante ne ji moom moo di l'Observateur journal bi dikk ci ak ñun ci lu aju ci yooyu la élection ak mbir yàq na mu demee yéenekaay bi li mu bind moo di waa Benno Bokk Yaakaar wulli nañu leen wulli yu métti te ci diwaanu Ndakaaru ci Rufisque ci Ziguinchor ca Kaolack ak fu ci bari ci réew mi journal bi nañu waa yeewi askan wi ñoo leen duma waa bale lépp tëye Walf Quotidien nañu yeewi askan wi jël nañu pouvoir bi ndakaaru sant na Dias ndax Barthélémy Dias gagné na ko Ousmane Sonko gagné ci Ziguinchor doon maire ba ci lu amul benn werante Serigne Mboup nappaaje Mohamed Ndiaye Rahma ca Kaolack jéggi ko jàll ñu jàll ca Kolda Mame Boye Diao jàggi fa Abdoulaye Bibi ca kaw ci suuf Ismaïla ci ba seen xol sedd ca diwaanu Rufisque candidat bi waa Benno Bokk Yaakaar sampoon ngir nee nañu moom fépp la perte Idrissa Seck mi daanu ca kees it bi mi ngi laaj ndax amul yoonu jeexal ci diwaanu benn dëkk ñaari gaar Vox Populi bind ne Barthélémy Dias xaw naa rey pouvoir bi ci Ndakaaru Ahmed Aïdara folli na Aliou Sall ci Géejawaay ca kees askano wàcc nañu poñ si ak mburook sow Ousmane Sonko wane ci élection yi ne dooleem ak basam mooy ca Sigicoor yéenekaay bi nañu li ñu mën a jàngee ci élection yi bokk na ci beneen xeetu ngelaw mi ngi upp ci réew mi las yéenekaay nañu ngelawal yeewi askan yi mooy upp ci réew mi Ousmane Sonko waabale na lépp ca Sigicoor nekkoon di mbalit ca diwaanu Sangalkam kii di Idrissa Seck moom bureau de vote ba mu voté ca kees sax dañ ko faa gagné Serigne Boub tëye Kaolack ba mu dëgër Moustapha Diop maire bu Louga gagné waat na Louga Mansour Faye maire bu Ndar gagné waat na Ndar Abdoulaye Diouf Sarr ministre de la santé moom ñaari dose lañu ko piquer ci élection locale yi benn xale bu ñu naan Seydina Issa Lay Samb moo nangu maire bu Yoff ci ay loxom Barthélémy Dias ñëw doggali ko ca maire bu ville bu Ndakaaru libération nañu suux ne gaal gu bënn la Bokk Yaakaar def ci élection locale yi ne bari na ay boroomi ndombay tànk ay boroomi daraja yu nekk ci nguuru Macky Macky Sall gi mu di ay ministre ak i directeur général dañu leen a duma duma yu mitti dañu leen a toroxal ci seen i diwaan ville bu Ndakaaru ak commune yu bari yu fi nekk Ziguinchor akub département Rufisque Sangalkam Tivaouane Thiès Bignona Kaolack Tamba fépp le pouvoir bi ñàkk libération yamu ca ndax mi ngi ñuy wax mbir yi ak ni mu tëddee ci diwaan yu bari yi ci Sénégal di ñu xamal ne Mamadou Ndoye Bane jël na Pire Ahmed Aïdara jël na Guédiawaye Racine Sy gagné na Podor Victorine Ndeye gagné na Niaguis ma gagné Sokone Makhtar Ba gagné Fatick Abdoulaye Seydou Sow gagné Kaffrine Abdoulaye Timbo gagné Pikine Cheikh Issa Sall gagné Mbour Sophie Gladima gagné Joal Oumar Sarr gagné Dagana Ali Nguy Ndiaye gagné Linguère Galoba gagné Mbacké docteur Tenek Sène gagné Ndiaganiao turbine nañu tendance yi ak ni ñu tëddeegum ci élection yi démb jurul jàmm ci waa Benno Bokk Yaakaar ndax waa Yewwi Askan Wi dañu leen a gagné ci fépp lépp la ñu waabale tëye ñu gisit ci élection locale yi ne ponkal yu bari ci Benno Bokk Yaakaar dañu leen a ba ñu ne wàlli journal l'info nañu bi woon ci ndakaaru ñoom waa Benno Bokk Yaakaar ñàkk nañu ko ci lu amul benn werante journal bés bi nañu ak ni ñu gisee tendance yi li leer ba leer moo di ndakaaru moom jaas bee fiy jolli Abdoulaye Diouf Sarr daanu ba ànd ak ki ñooñom di xalangu la def ci ndakaaru ci géejawaay maire ba fa nekkoon di Aliou Sall nangu na ne Ahmed Aïdara gagné na ko ba félicité na ko yéen bi dañu Ousmane Sonko it dëggal na taxawaayam ci diwaanu Ziguinchor Serigne Mboup jël pouvoir gis ne ak li xew yi avertissement la ngir Macky Sall ci atum 2024 source waa falee ci local yi ñi ñoom ñi fare ci mouvance présidentielle bi signal la bu ñu yónnee Macky ngir mu fàtte waxi troisième mandat